بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلة إلى الجنة ورياضة لنفوس المطمئنة وأرشدنا إلى طريق السنة تفضلا ومنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصائم القائم وعلى آله وأصحابه الأكارم وأولي المكارم ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen émission Samsuddiin dellusiwaat na si kàttanal yàlla ak mbaaxam ngeen ci ànd ak seen xarit seen soppe Babacar Fall mbokk yi nan la ñuy xamee ni Ramadan ñëw na nan la ñuy xamee ni Ramadan dikk na ndax tàndarma bu bari si marché bi la ñuy xamee ni Ramadan ñëw na ndax changement de climat la ñuy xamee ni Ramadan ñëw na. wala koo gis mu ñëkkal kanamam yoro soccam la ñuy xamee ni ramadaan ñëw na nan la ñuy xamee ni weeru koor ñëw ñëw na sallallahu alayhi wa sallam ne yasbutu ramadaan bi kamali shaabaan waaw nee na ñu ngi xamee ni weeru koor ñëw na ci matub shaabaan shaabaan bu amee vingt-neuf jours na nga xam ne weeru koor dikk na aw bi ru'yatil adlayni wala gisum ñaar ñu maandu ñaar ñu maandu buñ la waxee ni gis nañ weer bi ñaar ñu maandu ku maandu nag mooy ki nga xamante ni kenn du la dégg si lu ñàkk fayda waaye lu sa yoon nekkul doo ko ca gis ñaar ñooñu buñ la waxee ni gis nañu weer bi ah war nga see mën a sukkandiku nga woor waaye fa in xumma bu lëntee nag bu fekkee ni seentu nga xool nga ak sa bët gisoo fa ak milu iddata chaabaan mottalil chaabaan ba mu am trent jours waye du jar ngay wut ay horoscope di pousse nuage bi pour djema gis bi kon bu xasse leunt rek sa beut bu xas bo xasse xol giso weer bi rek matalal chaban bam am 30 jours bu ko defé nga tabal sa yene ben yene bi nak dina la doy nga wor ko weru koor bi yëpp ben yene bi rek dina doy nga wor weru koor bi bu fekkee ci jigen ni nak ku wor ba am gant bor bo reprendre na nga bessalat sa yene yow mi nga xamanteni ya wor wer kor yalla mu ngi lan la wa adana wa zalika ajran aziman waaw ma ngi len di wajalal yeen ñi nga xamanteni ni ay koor yol boo bu mag la wa sawaban jazilan waaw ak ay payor yo xamanteni payor yu reey la yow mi nga xamanteni yow ya wor wer kor te nabi neena na kep ko xamanteni wor na wer kor ngir gem yalla kese kese motax mu def ko waxti saaban ak sàkku tiyaaba kese kese kese sàkku yiw moo tax mu def ko yëgoon ni kooku daal xufira lahu ma taqaddama min zambik lépp loo defoon ci bàkkaar lépp loo defoon ci bàkkaar jamonoy jeunesse man yàlla subhaanahu wa taala danaa la ko jéggal te xam ngeen ni nag weeru koor yàlla nee na man maa ko moom bépp jëf boo xamante ni moom la doomu aadama bi di jëf nee na yow yaa ko moom waaye ba mu des koor koor man mii maa ko man yàlla subhanahu wa taala wa ana ajzi bihi te maa koy fayal sama bopp kon nag di nga gis bu ëllëgee yomal xiyaama ñu yàlla fay fay la seen koor ñu yàlla fay seen koor nga ne ah déedéet lii daal man yàlla lii liggéeyuma lii lii sa mbaax waaw sa mbaax ak sa yërmande moo tax nga def ko waaye liggéeyuma lu toll nii moo tax law ya'lamal ibaad bu jaam bi xamoon la yàlla def ci weeru koor kon dana mbébét bi yëpp mu nekk weeru koor dana mbébét at at bi yëpp mu nekk weeru koor ngir tiyaaba ci ci ci nekk sallallahu nekk wa sallam nee na gémminu ki nga xamante ni sax mooy woor gémminu ko woor moo ko gënal fuuf fuuf fuuf fuuf xetu parfum misk parce que parfum misk lu muy neex neex neex neex yàlla nee na xetu gémminu ko woor man moo gën a neex fuuf xetu parfum misk doon tey day naan xetu parfum oud yi li muy neex neex yàlla nee na xetu gémminu woor moo ma gënal fuuf ki nga xamante ni mooy misk kon nag mbokk yi nañ jéem a woor nañu woor mbon gi bari na caaxaan yi bari na ñaawteef bari na nañu woor ba ngoon jot wërbet ko tàllal yàlla ngir mu yërëm ñu ngir mu jéggal ñu ndax da daawatu saim maqbulatun ñaanu ku woor yàlla du ko delloo hada billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Thank you.